jàppal diw bayal diw far fii far faa amuñu benn sens xam nga donc du ñu mën a exporter la musique ba pare faire la musique non je me depuis certaines années yi passées yëpp ah, musique bi xamul mooy dund xam nga ñun doon noonu man voilà xale la ah mais ba mu nekkee xale bu ndaw dañ doon waxtaan ci musicien bi moo ay xoolal Papis Konaté xoolal expérience bu am xoolal lu mu dugal fii xoolal Dembène xoolal Habib Faye ndam si yàlla yàlla na ko yàlla xaaree àjjana donc ñun yooyu moo doon suñu débat mais léegi débat bi dafa nan autrement donc je vois tellement de jeunes yi nga xam ne dañoo talentueux xam nga ils ont tout à exporter kon nag su ma ñëwee pour ñu collaborer loolu moo indi mais man concurrent indi ma. nag ay dëkkoo fii ay Europe nga nekkoon loolu amul xam nga ñëpp ay Sénégal lañ nekk mi toog fi tey suma kilifa moo ma moo ma yar kon nag su ma euh, mënu ma wax nag comme mun na ko rek mais j'essaie de vous ni liggéey liggéey daf ay événement montrer c'est quoi la culture exporté ko te gëm naa ni yu bëri mën nañ ci gis ba mën a yor seen kër tamit yor seen famille normal dignement que ñu topp ci ay loo xam ne ay wax bu dul jeex la donc on aime trop discuter plat vrai pour donc su man ak kii juste expérience du du maa xam lépp mais ah, ci li jàng ci Europe ak expérience bi mu am comme ni naan ku tukki soo amul alal li nga am expérience donc euh, sama jaar-jaar gëm naa ne tey sénégalais en tant que en tant que toute euh, sama biographe euh, ci culture gëm naa amul kenn kenn ci Sénégal bu mu ko ci ëppale nu mu collaboré ak artiste muy international ak ku mun ta doon dañu bàyyi dëgg bopp te di déglu nit ki su la conseil rek vision rek la la conseillé du la lay conseil pour di la wan ne gën a xam ñun nag étranger bi ñëw extérieur muy tubaab beeg wala beneen xeet moom la ñu gën a respecté en tant que Sénégalais man damay gis ni loolu c'est malheureux ça c'est vraiment dommage que euh, dañoo war gëmante suñu bopp gëmante suñu bopp jàppale ndax suñu jàppante rek ñu ngi bëgg résultat donc foofu laay mën a yem en attendant di leen wan ni euh, on avait prévu benn concert le 7 août avec Wally si Rufisque pour démarrer woon yeneen date ci national bi comme que actuellement ak peut-être bi donc alal neex na waaye santé bi gën donc yaram foog naa ni amul prix donc on s'est dit que vraiment sagement nag ah du gouverneur du préfet du kenn même tout à l'heure règlement waa waa Rufisque woo préfet bi naan ma lu tax ngeen annulé ndax ñun vraiment dañoo bëggoon conseil mais ma ne ko non non ñun waxtaan nañ suñu béykat yi seen yeneen nga xam ne tey ñun suñu projet définitif mooy dem ba di créer ay festival ndax man loolu laa xam. je suis plutôt événementiel que même dans la production kon nag nañ jàpp ñu gën a xamante gën ngeen a bu ñu naxante xam nga du ay wecc ak affaire yooyu noonu nañ liggéey ku ci bëgg dans la culture liggéey si na nga ñëw ñu ànd ñu liggéey ku gëm ni mën nga yokk nawet bi pour autre chose projet yi yëpp lu mën ta ci culture on est prêt te yemuñu ci musique rek ah parce que lépp la musique euh, bëri même ba ci benn affaire bi nga xam ne dafa dafa manqué ci culture tamit muy bale mooy mhm. fecc bale xool nu mu deewee dañu amené beaucoup de monde dañ doon jël ay plus de cinquante personnes dañ yóbbu tey ñooñu tey ñoom ñëpp nekk nañ biir Europe toog fa parce que ndax lan parce que Sénégal dañ naan affaire bi doxul léegi foog ñu jéem a ñëw ñun ñu bañ a bàyyeeku xam nga jéem a ànd liggéey loolu rek moo doon euh, je pense sujet bi mu wax ni aussi j'aimerais bien ñu waxtaan ci la musique autrement grand ah waxtaan que ni lu ñu bëgg mooy gars yi def ko musique jéem a indi ak fekk ak xalaat yi voilà merci. non man je si am solo si yi ngeen aussi rivalité yi concurrent yëpp ñu ngi leen di <laughs> c'est une question aussi parce gis ni parfois sax euh, nit day wax loo xam ne sax phrase bi peut être yeggul ngeen dagg ko dugal ko ci lu nga xam ni waxawul nii man aw ma problème kenn kenn aw ma problème kenn tey mun naa ne tey euh, bu dee labal sax fii Sénégal bëri na bëri voilà kon vraiment. non non lay wax non suba teel label la peut-être man li ma jàppee label mooy PSA ndax ñoom ñoo ngi produire ñu ngi ay événement man damay soog a tàmbali commencé ko mais xam naa ne man label laa teg maa ngi signé ay artistes maa ngi teg ay événement loolu lay wax label label il faut produire il faut faire des événements loolu laa jàppee ko wala aussi gérer carrière d'un artiste mais nga jël benn artiste tu te dis que sama défi la mu jël ko plan A yóbbu ko plan C loolu mooy liggéeyu label mais du ay xam je sais pas on n'a pas de problème ak qui que ce soit dëgg mën na ragal ma nag fii waxu Sénégal mooy kii am na fit am ragalul mais loolu la loolu noonu la demee nag maa ngi xam ni. ragal nañ si liggéey rek la voilà loolu foofu laay wax. alors nekk le sept août mu nekkoon événement boo xamante ni Sénégal yi ñu ngi ko doon xaaral comme ni ma la ko waxee sànq rek concurrence bi dafa am déloyale ñu bëri dañ doon ñaan sax échec am parce que gëmuñu di nga mën a Euh, boobax léegi gis nañ euh, yoon yi leen jël c'était bien encadré et tout la moo tax nga décidé annulé ko au moment où les artistes ñu ngi jooy naan war nañ leen bàyyi ñu continuer seen ay activités ndax mën nañ eggali seen ay activités ci pandémie bi respecté li nga xamante ni mooy mesures yi nga xamante ni moom lañ leen tegal au delà de ça gis nañ perte yi nga xamante ni aussi dina ci am boo ko waxee boo ko événement bu koy wàcc ne dañu ko baax soo décidé annulé ko te tey nguur gi annulé wu loolu ko parce que préfet ba léegi waxagul ci dara donc boo décidé annulé ko texte yooyu nga jël engagé ko encore ci sa bopp juste pour aar sa askan comme ni ko waxee bëgg naa ko ñëw ci. ok donc euh, pour man tey laa demee man soo nee dama ma xamul moo naan damay dama ku ma xam dëgg xam ne lii du defi ci ndax foog naa ku liggéey ay Salif Keita Youssou Ndour Baaba Maal Césaire yoo xam ne tey euh, moo ngi fi donc loolu défi lii du défi ci man dara c' est que yéen xamoo leen ma mais ñi ma xam jege ma ah di doon ay ma fekk Europe ma xam leen donc man su ma def événement tout est protégé lii ñu fi financé lépp tout est protégé dërëm dërëm dërëm dërëm perte moo tax dama koy annulé tranquillité même suñu si pertoon sax dama koy